on m'appelle Radji Tiamiou, je suis le fondateur et directeur général de Sénégal à Flying Labs. l'entreprise qui a initié le concept euh, euh, avec euh, un partenaire, le concept du Sandaga Drone, un concept pour la promotion de la technologie des drones et des dérivés des drones, notamment les données, et aussi encourager les entrepreneurs et la jeunesse à entreprendre dans ce secteur parce que comme on l'a dit tout à l'heure dans, dans, dans, les présentations, il manque de main-d'œuvre qualifiée, il manque d'entreprises pour pouvoir faire

et nous sommes situés à Yoff Virage donc le programme bi ngeen ñëw tey jii nii c'est le programme Sandaga Drone 2021 boo xamante ne nii c'est le premier programme d'entrepreneuriat pour les services de drone au Sénégal donc si dafa nekk loo xamante ne nii mosul am c'est la première fois muy am fii nii Sénégal et euh, ñu ngi commencé programme bi depuis décembre ba tey jii nii la ñu am final et en am nañ équipe yu bëri yoo xamante ne ni déposé woon nañ seen projet finalement quatre équipes kese lañu ñu te si quatre équipes yi kenn dong moo mën a am capital bi ñu mettre en place pour mu lancer entreprise am li tax ñu def ko c'est parce que dañoo gis ne que fii ci Sénégal bon en particulier wala Afrique en général main d'œuvre lépp lu jëm ci drone wala nouvelle technologie dafa raar et donc lu ñu bëggoon mooy ñu combler manque boobu noonu nga xam ne au lieu kon tout le temps ñu wut ay experts internationaux am nañ fii une expertise locale bi fi nekk donc bu ñu soxla on n'aura pas besoin di dem à à à l'étranger ou quoi que ce soit dañuy ñëw xool suñu ressources yi et on pourra l'avoir donc xaalis bi déjà am nañ ay partenaires yoo xam te ne ñoom ñoo ñu accompagner donc parmi ces partenaires là am na Wii euh, Wii Robotics euh, Jameson Prime Step nga xamante ne ni moom li tax mu jóg c'est vraiment pour aider ñi nga xam dañoo bëgg def entrepreneuriat am nañ tamit ay structures comme IPAR Free IAM tey jii nga xam moom moo ñu accueillir fii nii et donc xaalis bi dañ leen koy jox mais pas gratuitement parce que derrière dañuy def suivi bi pour xool est-ce que li tax ñu jox leen xaalis bi ils vont le faire réellement. et par la suite dina tax ñeneen aussi mën a am envie également rejoindre aventure de Sandaga Drone donc ñun derrière ce qu'on y gagne c'est que déjà dañuy former ay nit yu bëri ci entrepreneuriat ci lépp lu jëm également ci nouvelle technologie drone bi dina tax nit ñi xam ko et plus les gens seront informés dinañ gën a mën a ñëw ci ñun et donc pour ñun l'avantage c'est de vraiment faire un transfert de compétences comme dañuy wax donc transfert de compétences bi mooy tax ñu am base de données bu solide bu tax on n'aura vraiment plus besoin d'aller à l'étranger ñun suñu devise on va dire c'est vraiment donner le pouvoir au local comme niñ ko mën a defee ci bépp euh, domaine mën nañ ko def également dans le domaine des drones nga xam ne c'est pas vraiment connu ici au Sénégal voilà C'est la première édition, donc, et c'est la première édition également en Afrique de l'Ouest, il faut le préciser. Donc, Sénégal, mon est le premier pays qui a organisé ce programme-là ici en Afrique de l'Ouest. Voilà.